Youssou Ndour à Bruxelles Youssou Ndour à Bruxelles le 27 juillet Youssou au Palais 12 kon ni euh, tey Sidi Diop fii lay ndekkee Sidi yegsi na nag euh, euh, ba toog plage yi nag moom moo koy feesal. kii day feesal plage xale yi. del del del del del <laughs> del ah. te dafa ah. xew te lu am la ah. mooy artiste ñu ngi bàyyi plage yi muy feesal plage yi <laughs> ah, dañuy taxaw ba dugg ci ndox mi mais mais mais loolu mais est-ce bu plage yi feesee nit ñi dañ mën a fecc jaabi daal damay ragal ñuy dóor <laughs> damay ànd ak sama noonu dem dem concert di ci profité naan ko nii di ko dóor waaye naan ko naan nii la wuy ma da nga juum nii nii ngay def. wàcce wàcce ko ah da nga yóbbu. ah da nga yóbbu mais xanaa boo ko yóbbu doo ko fa bàyyi di nga ko wàcce. mais regardez xoolal li xale bi di def ci place yi kii daal. man daal xale bi daal xale bi daal ah moom de xanaa mooy Mbappé. ci way wi Sénégal. xale bi daal lañ ko woowee Mbappé Diop rek. la ilaha illallah plage yu fees del del del del incroyable. wow. et puis lu ñu gëjoon gis ah. musique bi wàññi leen ko tuuti dañuy wax ci moom. toog waaw kay jërëjëf ña Majadum euh, nga ma ne lu ñu gëjoon gis ah. oui sénégalaise on se rappelle euh, man mi may fàttaliku genre affaire yu mel nii ay voile d'or la woon. ay Viviane ay Marco Plage. Alioune Mbaye Nder Alioune ah, yooyu donc waa Nder na ko woote waat. mag ñi dootuñu ko dolli xale yi ñoo xam Mbappé Guèye yow tamit <laughs> kay Zidane na dem mondial set. nii ah, noonu de li fa Mbappé def du ko def. ñoom Nder ñoom Youssou ay mag la ñu léegi. Ah, jàng bu nekk ak ko ko def xale baa gi. te reer dafa yaru te wuyu la sur scène. j'adore ça nga yaru mais boo nekkee boo boo dee def sa métier di wax yu ne. Eh, parce ah. moom la def ñaari personnalité yooyu nga xamante ne moom la ñu am ñoom. Euh, moom mooy nit ki. te dafa wàcc def li ñëpp di def seeti ay mbokkam dem juma et cetera et tout bu nekk ci kaw scène bu nekk ci kaw scène seen il est en mission ah, ah. à la limite sax dañuy bañ ñoom buñ paree way mhm. nit ñi duñ koy comprendre ñëw ñëw jege leen mhm. parce que duñ nekk nit mhm. nit boobu buñ koy bu ci mooy dafa am luy génn si ñoom loo xamante ne dootuñ ànd ak euh, seen raison parce qu'ils sont tellement animés que bu ñu wàccee il faut ñu jël benn minutes pour Sidi Diop gàt ci yaram bi. Mm-hmm. donc loolu nag moo tax ñuy bañ artiste bu wàccee kon Sidi bu la neexee ñibbi li nga waroon wax boo xam ne la ko. c'est c'est un euh, am rouge. Euh, non vaar alaaji. ok d'accord d'accord laaj laaj ko tonton Mag. Ah, <laughs> Sidi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay nuyu et di la féliciter di la ñaanal quoi. xam xale moom boo waxee léppam euh, dañu naan nit ki boo liggéey léppam yaa ko catu mais ku mel ni moom da ngay bëgg di wax ci moom da ngay bëgg di wax ci parce que euh, mérité na ko et pourtant ñu bëri gëmuñu ko woon waaye gis nga de bi mu bi fi mu mujjee yàlla na suñu borom lafal ko cat yokk heureusement dénk ngi ma téye ci rek waaw cat moom daa mel ni yoroxlaan moo raw laalum bépp dafa di tax di jëkki-jëkki na sara waaw ay téye visa yooyu yëpp mu ngi ci. ay cat la ay visa yu ñu doon mayeeg. ay woy ba mu yàgg sa baat dee daal. yëpp ay xeetu cat la touché touché. yéen tamit seen kër yi touché du bois pour yàlla bàyyi ñoo Sidi Diop ñu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi. waaw salaamaaleykum waa Sénégal. salaamaaleykum waa àdduna waaye tamit maa ngi nuyu ñi ma bokk ak plateau bi. Mm-hmm. di la nuyu grand. di nuyu sama soppe yëpp képp ku toog di seetaan Sidi Diop rek maa ngi lay nuyu. mais Sidi jaal bi xanaa feeling la. ah gis nga. waaw di waa Sénégal di nuyu waa àdduna di nuyu sama yaay. di nuyu sama papa bi ma jur di nuyu sama famille papa ak sama famille yaay. Mmh. Mmh. Mmh. di nuyu aussi euh, waa kër gi ma dëkkal kër ajaratu Dieng ba Fall. Ibba Dekko famille bi yëpp ak sama manager. Dekko Ndiaye di xam naa 6 heures du matin lay. non yeewu na ak sama manager bi taxaw Baye Zal chéri Awa. en maa ngi béggee ñëpp ak sama yaay. voilà man nag damay damay dama a laaj euh, toujours bu ma la gisee sama yaram dafay daw macha allah li ma lay bëgg a laaj mooy lan ngay voilà quoi lan ngay yëg nii fii nga fii fi nga toll mm-hmm. waaw lan lan ngay lan ngay yëg qu'est-ce que ça te fait waaw euh, doo ci yëg leneen lu dul contentement parce que comme li nga wax rek amaana sax gars yi fooge wuñ ko woon dëgg mais yàlla mooy jékki-jékki rek xool fu dara newut mu def fa dara macha allah man nag li may wax rek laay wax sama gaa yi que ay at ci ginnaaw kenn xam moon bu yàlla yàlla du liggéey loo ko mun na mu ta fay su ma joxee baat bi rek daa bëggoon ma am lii te maa ngi xaar lu dàq lii aussi. malgré neex na mais chaque jour comme géej gi ba ma ko paasee ah dama ne paase naa ko. am na leen lu nekk ci sama kanam ndax amaguma disque door demaguma Wembley demaguma Zénith demaguma Bercy. comme xale laa ah 94 nga ñëw suñu borom defal la lii. damay ñaan yàlla na yàlla xeeb dolli te mu yeggale ma ni yoon. ma tey bu ñu ko doon laaj bu ñu ko doon bu ñu doon laaj ñu gis ne euh, tey danga nga particularité bi nga xamante ne moom la la Sénégalais yi. Euh, gën a bëgg mooy Sidi déjà bu taxawee. ci kaw seen rek si day jox seen mooy maanaam. may mu man daf may xalaatloo Carlou di par exemple. da nga jël bu star bi teg fale. Ah. dëggal leen. Ah. fecc fecc way carrément way. Ah, ñoo xam ne ñoo xam ne ni nga mel. barki dem dama doon wax ak baxaw maa ngi koy nuyu waa Dabrens mu wax ma wax ju am solo ndax man bu ma nit di wax damay xool li baax ma téye ko. Mm-hmm. li ma intéressé wul ma tegee ko ne baxaw ne ma sa succès ci doomu aadama yi la nekk. Mm-hmm. yow mi siiw sa succès ci doomu aadama yi parce que ñoom ñoo lay gis jooy daw photo yow. ñoom bu ñu demee ba loolu yëpp ñu téye ko ci yow rek amatoo succès. se mm-hmm. vrai c'est vrai nga. moo tax nag ñooñu su ma leen fekkee sama soirée damay jéem a fexe la ba ñu bëgg. ndax boo ñëwee di dugg si soirée bi kees bi dara du fi nekk. nga ñëw commencé way génn ñu ñëw sa kër kees bi fees dellu ñu indi la fa xaalis te tegoo ko fa. jaam ñee ko fa def. ba pare eh, duggaat mais dafa doo ca. yow da ngay dugg rek way nga pare mu fees ñu dagg ticket xaalis ba ñu jël ko jébbal la ko. te nga xam ne lii ba may dugg new fi woon. bokkut ak lañ lay may ci kaw seen bi. kon ñooñu li la war lenn rek la. Mm-hmm. fu ñu toll rek nañuy bég ndax doole lay jën ndox la. waaye dooley woykat nit ñi la. c'est bien ça maa di a baax. mais Sidi man aussi. leer na ba noppi de. bu bu bëggoon naa la laaj leen parce que dama gis ni que da nga euh, fidéliser tellement ce public. chaque fois boo joué fenn dañuy ñëw. Euh, que ça soit muy boîte ou plage comme ni ñu ko gisee léegi ci image yi. Mm. Euh, est-ce que peut-être dafa am benn liggéey boo liggéey derrière wala sa staff liggéey ko ba à chaque fois. Mm. boo wootee dañuy ñëw lu mu sori sori wala lu mu xat-xat dinañu ñëw qu'est-ce qui fait ce public boobu di la suivre affaire star ak ak fans mhm. man li may dund ak ñoom mooy mag ak raq mhm. sœur ak frère mhm. ndax bu dara du dara ñun ñooy toog di ataaya bu ma xamee ni Pape Cheikh mi daf may bëggee tey la anniversaire am dama koy bett dafa seen kër daa am génte damay jéem a fexe lu tuuba dem fa mhm. comprendre nga démb rek am na sama benn soppe boo xam ne da doon génte mhm. ndax ma ko fàtte wax xam naa ne da ko fàtte mhm, ma toog ñu ne ma ngénte lu ma taal sama ànd ak gars dem fa ba ma duggee maa ngi sant ni mu kontaane woon kooku foo wootee te mu ñëw ndax da nga ko bett ah, ah, noonu la rek ah, Euh, euh, plage bi na mën wax plage bi. est-ce que yaa ngi xalaat euh, beneen defaat beneen événement boo xamante ne par exemple Dakar lañ Dakar lay nekk feneen ci dakaar waaw ñu ngi waaj voile door voile d'or ci vacances waaw defoon nañ ko ñu ngi waaj aussi BCEAO. Mm-hmm. ñi ngi waaj tëjaat aussi mali bu ñu ngi koy waaj tëjaat ko ndax foofu sama koñ la mooy géejawaay. Mm-hmm. sa diggante géejawaay. loolu tey boo ko doon nekk ban particularité. Mhm. lan lay def ci yow Guédiawaye. mais neex ndaxte nekk fenn ndongolo dane bul bëggati dëkk ba dem fa bu la dëkk ba bëggee demal waaw man waa Guédiawaye dañ ma bëgg. Mhm. nu ma mën a mel ñoom la keroog ba may dem concert bi sama mag gi moom bul bul dugg oto da ngay dox waa Guédiawaye ñoom ma jël si sama buntu kër ma ànd ak ñoom dox. ba ci concert malgré amoon naa difficulté pour yéeg ba mu jeexee tamit ni mbooloo mi toll dañ ma ne doo dugg oto da ngay doxaat ma àndaat ak ñoom malgré dina metti mais ñoom loolu lañ am ci yow ndax atu lëmb la ñu toll foo woote ñu ñëw dagg seen mm-hmm. kon nag day yoon nga jëlaat cinq mille yëpp dajale ko jébalaat leen ko mm-hmm. di dox ak ñoom di ànd ak ñoom ñuy gis ni kii euh, parce que kenn rek bëggul ku ko yëg muy sàcc. Mm-hmm. waaw dund rek bëgg nga ku la yëg bëgg nga waaw. kuy dund rek bëgg nga ku yëg. loolu laay dund ak moo tax ko. Ah, Mbappé ma mooy Sénégal. mooy boole waaw te dañ maa bëgg ba ma xam ko. foofu laay dem tëddi. d'accord foofu laa njëkk dawalee. Euh, moto. Hmm. falaa dawalee vélo. falaa dem ba dawalee fa oto. macha kon lu ma am lépp banlieue la. macha allah ak Tivaouane aussi. Hmm. maa ngi leen di bëgg bu baax ndax falaa defee primaire. Hmm. ñu bëgg ma trop surtout waa Kër Cheikh Awa Balla. yàlla ñëpp am jàmm. alors Sidi génne nga sa premier album ndorteel euh, loo ci am. comme je peux dire est-ce que tey boo doon wax sa bilan ci album bi mu génneeg léegi tu es satisfait ci album bi. bien sûr parce que album bi dama ko génnee une semaine après dem tournée. Mhm. ànd ak euh, Ibou ak ñoom Jaaf doomu Jolof. Mhm. ma koy bëggee waale Jaaf Touré di ko wax. Jaaf tey l'anniversaire mhm. loo dund. Jaaf bi Jaaf de la tudd. album bi ma wax dëgg yàlla am naa ci lu kawe sama njort. ndax ba ñu demee Jaaf seede na ma ni ko nit ñi doon jëndee à l'extérieur. man daf maa bett waa tey te am na feneen fu ma yóbbu mhm. am na beneen expérience boo xam ne jàng naa ko mhm. parce que way way nii rek waa mais indi album te nit ñi bëgg ko c'était mhm. pas évident te ba mu ñëwee tamit nit ñi bëgg nañ ko Morso Jaabira ak moom tukkal na àdduna macha allah jaabira kay moo moo moo toj dëkk bi j'ai vu sur internet challenge bi ci gars yi def challenge jaabira nga la dañu ko tegal yaag ma xubee euh, euh, ñu xool euh, challenge boobu noonu j'ai vu ça gars yi di ci dem parce que am na ñu ko mën am na ko mënul mais dafa xew boo ku ko mën ak ku ko mënul ñëppee jaabira bi <laughs> rëkkante rek waaw <laughs> challenge jaabira bi dañ ko xool comme saa ñu waxtaan ci ak Sidi Diop Bravo. mais jaabiraa tamit yombul de. yombul yombul yombul la mën de ñuy feccee ba tëb nii il faut jàngal ñu ko léegi balaa ñuy euh, ñuy tàggoo. mais dafa am histoire jaabiraa. waa jaabiraa nag sama benn doom la ju dëkk Pikine. Mhm. bëgg ma wax dëgg yàlla maa ngi bëgg walla tamit waa pikin bu baax a baax a baax. Mhm, mhm. ñoom foofu lañ dëkk. Eh, benn bis la ñëw sama soirée rek. mooy joué di woy ba ci yàgg. ma gis ko muy fecc fecc bi rek ma jël turam. Ah, def ko moom moo tudd Jaabira. moom moo tudd parce que Jaabira sant la. Ah, moom Mariama Jaabira la. Mariama Jaabira. Ah. waaw nga dëgg amoon naa waa classe su sant bu sant Jaabira. xam nga mooy li ma waxoon rek yàlla mooy jël benn affaire rek teg ci loxo. ndekete affaire yi fii la waroon mujj. mais bii bi bii nii ak sa un un bi ban moo gën a bu gën a garaaw un bi wala jaabi laaj bi. waaw bi nag duma ko xalab ndax moo ma jox meilleure révélation. un un bi tam na de. ah yow da ngaa garaaw naa ni ci gën a tax ma jël meilleure révélation 2017. ci la bokk ren tamit bii ñëwaat ñoo ngi ñaanaat yàlla nañ ci suñu borom am lum ñu ci mayaat. leer na leer na ba noppi. yaa ngi jóg yaa ngi jógee tournée di préparer nag euh, Espagne. waa Espagne bi kañ la. waa xam naa suba la ñuy dem ndax. suba ngeen di dem waaw. concert bi samedi bii la. waa très bien. incha allah ah fan la fan la ci Espagne. xamaguma dëkk bi nag ah. ah? Lérida Lérida Lérida ndeysaan Espagne yaa ngi dem fu neex ok. donc mais tey booy dem ci bitim réew tey si ñu jóg. nga gis li nga liggéey Sénégal macha allah yal yàlla daf cat. Mm. nga dem sur le plan international. Euh, lan ngay lan la lay lan moo lan la lay yokk mooy lan nga ciy jàngat. Mm-hmm. yow waaw waaw lu lu jàngat gu bari nga ci am ndax da ngay gis nit ñi foofu tamit ni ñu la bëggee nga xam mm-hmm. yow ndekete. yow sa musique yamul fii rek. Mhm. ndax nga génn feneen nit ñëw ne la sa son bi dafa maa neex tegal la ko mhm. loolu rek sa fait plaisir. Mhm. wala nga génn beneen dëkk xam ni fii dëkkuma ma fi juddoo ma fi. nga ñëw di woy saal bi fees dell loolu sa fait plaisir maa ngi ci gërëmaale tamit bu baax waa doom doomu jolof gépp ah, jaaf encore une fois happy birthday maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax maa ngi war a demaat mais nag tous les vendredis. maa ngi fii duplex. waaw foofu laay nekk gis naa affiche vendredi fa la daje ñun ñëpp. Kafoore def jaabira xam nga chaque vendredi fa laa nekk mais vendredi bi nag damay sauté comme que damay voyagé. mais su ma ñibbisee à partir damay ñëw euh, ma nekk foofu noonu ba vacances yi jeex incha allah. Euh, euh, nit ñi ñu ngi doon xaar sax mu am ci est-ce que mën nañu xaar peut-être nga génnee benn CD ou album boo xam ne ce sera 100% live nit ñi mën ko dégg. yeah yeah nañ maa ngi ci même Jaabira bi bi ah, version bi nekk ci album bi waaw ñu fekk tuuti fu fu aram yi ci anniversaire bi tamit léemu naa bi tamit loolu version live la mooy bi may wax yàlla na ma yàlla yeggale ni yoon mm-hmm. waaw mm-hmm. parce que loolu moom laa doon wax bee passé bi mu euh, dafa ci wax ba duñ ko fetti non non waaw non non non non <laughs> mais je veux dire que ne euh, loolu su tax mu ci doon wax parce que dafa tombé film bi bu ko laaj dara ci problème mu visa yeeg yooyu bàyyi ko rek mu àggali la non non non bu ko posé benn question non posé wu ma question mais damay dëggal li mu wax mm-hmm. parce que loolu mooy prendre conscience li la yàlla may ba euh, mu léemu boppam ah, donc xam na yàlla may na ko lii vraiment euh, loolu defe naa ne bi mu ko woyee Cissesse moom gis na ko bi mu ñëwee taxaw euh, foire ba y avait tellement de monde foo dama ne dama ne gis naa ci àdduna ndaw mu tabax këram te ba mu demee ba yegg dëkku ca mhm. gis naa koo xam da doon ñaan yàlla tukki ba mu demee ba léegi ñëwaatugul nga gis kuy ñaan yàlla sëy ak jiw te ba mu ci duggee amu ca njaboot mhm. ma ne yàlla bu dee musique bi am naa ci cër maa ngi lay ñaan nga jox ma ko te nga yeggali ma ni yoon macha allah waa Mbour géej nag nañ ma xaar 15 out maa ngi sali asalia mbuur na ñëpp génn sali teranga aar. incha allah 15 août moom mbuur laa koy passé. mais di nga dugg ci région yi. waaw def nañ daaw tournée nationale ak ak euh, maxu production ak doomu jolof ak doomu jolof ñu ngi koy waajaat aussi. Oh, mais daal nañu waaj jamono ji voile d'or euh, BCEAO te dama koy tëjaat tamit sama gox Malibu. Malibu mais Serigne Diop dama a dégg ci ay son rap. waaw ah. ndax dama daan rap dama daan waaw man musique yëpp laay déglu waaw tamit di di béggee waale mm-hmm. maa ngi lay maa ngi lay santaat di béggee parce que lii tamit su ma ko deful Pape Cheikh mm-hmm. géejawaay laa dëkk ñu am mm-hmm. suñu benn mbokk artiste Ngaaka Blindé boo xam ne tamit nat da koo dal ñoo ngi ñaan ci barke saal yu Mbacké guddi gu lëndëm gii mu nekk yàlla na leer ndax yaayam namm na ko géejawaay namm nañ ko ay soppeem namm nañ ko Ngaaka ñi ngi lay wax moo ne de tout cœur avec toi yàlla na lu suñu borom delloowaat ci ñun te mu doon sañ te mu doon sa mujj. Mhm. yàlla ba fa dellu. voilà te yàlla na gaaw génn incha allah yàlla buy defar day ci jaabi bi la ñuy euh, la ñuy jeexalee. Euh, donc samedi bi euh, Sidi Diop mu ngi dem dëkk bu ñu naan Lérida nekk foofu ca Espagne on en profite rek très rapidement pour wax ni suba dinañu expliquer waat naka ngeen mën a def pour jàppale Viviane ci li ñu ko nominé ñu tuddee ko Next Generation Entertainment Awards. donc affiche baa ngi noonu on expliquera tout aux téléspectateurs demain. oui voilà donc ko expliquer Pape Cheikh danaa ci ñëw andi détails yi. comme ça nit ñi mën a gis naka la ñuy def euh, pour euh, voter mm. parce que bokk na ci euh, mën nañu wax nomination yi gën a mag ci Afrique quand même mm-hmm. quarante catégories dafa def c'est énorme donc na ci Sénégal yëpp jàpp ndamam suñu ndam la et puis ça fait plaisir ñu nominer jigéen aussi yàgg nañ ko nominer mais ça fait ça fait plaisir mm-hmm. jigéen tey ñu nominer ko ci catégorie bu mel noonu voilà donc suba nañ ci ñëw nag ci détails yi def ay mm-hmm. capture wane nit ñi comment faire pour voter voilà pour pour elle def daf ko mérité donc dinañu ñu expliquer leen euh, naka la nar a demee ce sera ak euh, Exidex très rapidement tamit ñu ciy profito di euh, souhaiter joyeux anniversaire ñi nga xamante ni tey mooy seen bis malheureusement du ñu am temps pour jàllale anniversaire yëpp comme ni ñu koy defee chaque jour mais quelque rek bokk na ci suñu xarit jaaf ture moom c'est un très grand artiste ñu ràññee ko bu baax muy jàppale artistes yi gis nañu digganteem ak Sidi Diop donc Diaf joyeux anniversaire Mamadou Gassama laa ko tuddee xaritu Mamadou Gassama la <laughs> Mamadou Gassama bu Paris yaa fa ngi voilà mais jàmm sama xarit la nag te man xam nga dama am ay xarit